biir Sénégal ba tey dañoo bloqué lépp luy contrat ci wàllum santé yi nga xamante ne commencé wuñ woon di ko exécuter parce que le fi ñuy egg ci surfacturation c'est inacceptable ba ma ñëwee seet si sama euh, ki ma fi wuutu ñu nekk di visite bi ñu toogee ci jeudi boobu ma ne ko gis naa ne ñu ngi def benn convention boo xam ne convention la ak naa fekk na signé woon nañu vingt cinq ans avant mais convention bi arrive expiration ñu gaawantu war ko joxewaat vingt ans plus tard pour les vingt vingt prochaines années ma gis na nu ko tegee le intérêt au Sénégal yi ça n'a pas été préservé mu ne leen bàyyi leen ko kase leen loolu defaat leen un nouvel appel d'offre pour mu wóor ñu ne que les intérêts du Sénégal sont pris en compte te bës bu ñu ko defee ba pare ngeen gëm-gëmale ko convention bu ñu arrêté ak bu ñu am di ngeen xam ne intérêt Sénégal préservé nañu ko ñun par rapport déjà réalité finance publique Sénégal dañ ci njàgg am doute ak certitude ne am na lu ñu waroon càmbar ci biir dès 2018 suñu parti dafa bindoon ministre des finance bind FMI bind banque mondiale ne leen ni ñuy gisee ñu sayto finance publique Sénégal suñu xel dalu ci te bu ñu ñëwee ba toog effectivement fekk nañ situation boo xam ne xëy na mënoon nañ ko gën a saytu mu gën a sell gën a set ci réew mi donc évidemment mënoon na am jafe-jafe ci lu gaaw surtout que pendant ñu doon def loolu am ay jafe-jafe ñu ngi doon signé ay ay yeneen ay yeneen décret pour que ancien ministre ñu kon ñu am li ñu leen di fay signé ay yeneen décret pour ce qui est des d'autres travailleurs d'autres secteurs di jël engagement yoo xam ne état mosu koo nangoo jël mu jékki-jékki yéwén ci mu doon loo xam dañ ko ñëw ñëw rek fekk ko suñu mu këpp suñu kaw te te du ñoo ñoo ko jël surtout que ñun ñooy ñoo naar a doxal am responsabilité cinq prochaines années loolu ànd ak environnement boo xam ne nag boo seetloo déjà sur le plan conjoncture internationale nit ñaa ngi subir les effets de la crise Covid 19 ba tey di subir effet wu guerre Ukraine ñu ne deetuwaay mu am une guerre au Moyen-Orient boo xamante ne xamuñu fan lañuy fan lay mujj kon évidemment conjoncture internationale c'est seen conjoncture très difficile dëkk bi tamit nekkul na de lépp daf fi amoon jàmm rek ñëpp di liggéey ni ñu war a liggéey ku ne xam na de mille vingt et ba deux mille vingt quatre bi bi bi may Sénégal yi di jox lenge yi mais coow ak jafe-jafe amoon na Sénégal à telle enseigne que liggéey gi xawoon na lompoñ kon li nga xamante ne ci liggéey googu lay jële jóge nguur gi di ci am koom di ci mën a jële xaalis di ci liggéey évidemment liggéey boobu xawoon na sooxe kon sur tous les plans les indicateurs étaient presque au rouge wala boog à l'orange loolu la ñu jëlee réew mi mais alhamdulilah taxawaayu askanu Sénégal ak même leader politique yi nga xamante ne dès vingt deux heures ba minuit presque ñoom ñëpp félicité félicité nañ ma nit nit ñi ragalee ragalee bitim réew xam na ne que ce peuple là mérite d'être soutenu kon am nañu crédibilité boo xam ne malgré conjoncture bu métti malgré malgré situation yu bëri continuer nañu dañu def confiance ba Sénégal mën a def loolu ñu am tamit ay ministres yoo xamante ne xam nañu seen liggéey notamment su ci wàllu finance ak wàllu coopération ak ñi nga xamante ne jël nañu leen ci domaine boo xam ne mën nañoo wone yoon wi. yaa ko waxal sa bopp da nga fay fekk benn situation bi nga xam ni doy na waar suñ la suñ la déggee et pourtant dañoo toog euh, ñaari weer. lu matul ñaari weer lépp lu nekkoon borse wala agriculture daanaka ba mu des benn bu ñu war a auditer nga daal di koy fay ñu ni déetawaay nga ni da ngay wàññi dund gi le ministre des finances nee na lu toll si juróom fukk ak ñeenti milliards lañ ci dugal ñuy xaar yeneen pàcc yoo xam ne dañ ko war a wàññi yu si mel ni ku courant alors sénégalais bi tey lan la bëgg xam mooy naka ngeen def ba mun a supporter lu ñu mel ak ba kañ ngeen ko mun a tenir d'abord question de réallocation de ressources la et de, du sens des priorités vent d'espoir bi ànd ak suñu élection ak peuple sénégalais lu mu xaree tànk tubéyam ci défendre les valeurs républicaines et les valeurs démocratiques dafa mérité woon ñu sargale ko ci loolu dama ko waxoon benn jours que bi ñu doon def campagne électorale nit ñi di daw toujours am na échange ak dialogue buy am ci diggante ñun nekk ci kaw oto yi ak ñiy daw di wër suñu oto yi luñ ñuy wax mooy sonn nañu wàññi leen dund gi dañoo bëgg liggéey en tout cas seen doléance dañ koy dégg nga xam ne coono coono ngi ci askan wi. kon boo ñëwee évidemment ni ñi waxoon nañu ne que duñu dem ni ñi waxoon nañu ne que mënuñoo wàññi dund gi même bu ñu waxee ne dinañu wàññi am na ñu toog ñu nekk ci secteur yi toog tele ne c'est impossible. mais luy suñu fort mooy mosuñoo gëm impossible te bëgguñu xam sax lu impossible parce que loo xam ne c'est impossible rek doo ko jéem bañ a xam ka nangam ak nangam c'est impossible moo tax ñuy def l'impossible kon ut nañ ay ressources am na lu ñu am am na loo xamante ne mu ngi fi woon ñu waroon ko alloué loo xamante ne du urgence am na loo xamante ne état doo moo ko doon jël di ko di di fas yéene ko yenn ci ba renoncé ci ay recettes maanaam bàyyi ay taxes ak leneen ak leneen ak waxtaan tamit ak partenaires sociaux yi parce que ni ma waxtaan ak syndicalistes yi waxtaan ak secteur privé yi ñu toog def ay travaux ay séances de travail ak gouvernement bi premier ministre ak gouvernement ci la ñu xamee ne tamit que am na ñoo xamante ne xëy na seen marge war nañoo mën a def effort budgétaire boo xam ne ak li ak état bi jot a def ak ñoom buñ ko xoolaatee am na foo xamante ne mën nañ copp comp fu ne pour pour gën a oyofal yéen wi sénégalais yi ba fan benn certitude rek laa leen mën a jox mooy suñu engagement ci noppal sénégalais yi du wàcc mukk te lu ñu am ci ñoom ci yërmande rek ñu gis ñu def ay jéego ci wàll woowu nañu xam ne ki li nekk ci suñu xol ci yéene weesu na foofu foofu di dem kon lu ñu wàññi na sénégalais yi xaar na ci fii ak ay weer dinañ ko wàññiwaat parce que lenn li ci méthodologie d'approvisionnement yi la yenn yi ci ay nit ñoo xamante ne fas yéene wuñu woon taxaw ci liy noppal sénégalais yi je prends un exemple simple ci lu ñu fas yéene def ci euh, par exemple gis nañu ne bu ñu doon wax pour ñu wàññi mburu mi nee nañu mënul nekk mais ñu gis ne par exemple ko bu ñu dee jënd farine mais am na ñoo xamante ne ci même jour même même même même fournisseur ci biir même bateau bi ñu jënde ci même personne bi kii ne lii laa jënde kii ne lee laa jënde mën na am dëgg la parce que wax dëgg yàlla le secteur privé ils ont joué le jeu aussi il faut ñu sargal leen ci loolu waaye dañu jàpp ne bu dee looloo ngi am rek jar na ko secteur yu bëri ci approvisionnement ñun ñu teel ko suñu bopp dem jëndi bu ñu jëndee andi ku doon importer ñu ne la demal nga fay ci banque bi nga jëw nga ñëw lever li nga xamante ne moom nga soxla woon ci quantité bu boobaa dinañ am une maîtrise du coût d'achat dinañ am maîtrise ci dédouanement bi te dinañ am maîtrise ci stock de sécurité bi te loolu identifier nañ ay produits yu bëri yoo xamante ne fas nañ yéen ko fas nañ yéen ko ci def bu ngeen xoolee ci communication conseil des ministres waxoon naa nañu liggéey sur une agence de centralisation de la commande de l'État du Sénégal liñ ci fas yéene def rek mooy dans la logique de la réduction du train de vie de l'État dañoo war a góorlu rationaliser déjà lépp li nga xamante ne dañ koy engagé ci dépense par rapport objectif yi ñu fournir mais c'est pour permettre que lu ñu doon jënd fekk ne yow saa nga ci soxla lu lay coûter boo ko dajalee woon jënd 1000 évidemment ci 1000 bi lay gën a moins cher que boo jëndee 100 mais bëri na loo xamante ne tey dañuy bàyyi direction bii mu jënd bàyyi direction bale mu jënd bàyyi direction bale mu jënd te lépp di jóge ci même budget bi kon au ñu bàyyi ñëpp di jënd day def centrale d'achat pour toute l'administration publique pour que ñiy jënd bu ñu dajee loolu mu gën a bëri ñu mën a jouer sur les coûts kon instant yi identifié nañu ay niche yu bëri yoo xamante ne mën nañ def ay jéego pour réduire le coût des ressources que bi état bi di engagé pour mën ko jël dugalaat ko feneen yu mel nii agriculture lu mel nii leneen ak leneen par exemple bu ñuy ñëw ñun yaakaaroon nañ ne que trois mois yu ñu fi nekk du ñu mën a waajal campagne agricole kon xëy na nit ñi ñu ngi doon xaar que nu ñu góorloolu góorgóorlu lu ñu def daaw la ñuy mën a def mais lañ lañ def dañoo ñëw ne naka la doon demee ñu expliqué ñu ñu ne leen du ñu deferee noonu. dañuy wax ne état soxla na temps engrais soxla na temps semence ñu ne par exemple pour engrais bi kan moo ñu mën a jaay temps de tonnes nit ñi def ay offre def ko sous pli fermé ñu dépouiller kanamu ñëpp ñu dem jël le prix le moins cher pour le même type de produit parce que man su ma soxlaa soixante dix mille tonnes d' engrais daaw c' était trente cinq mille ren soixante dix mille lañ ci def donc double nañu ko. ñu ne leen boo demee ci kenn rek ne ma jaay ma bu la waxee ne sa lii laa lay jaay doo ko mën a dindi mais boo nee yéen ñëpp xool leen ku ci ne ñaata nga ma koy jaay da gis ne kii bu la ko dee jaayee ñaar fukk kii dana leen ko jaayee fukki juróom kii jaayee la ko fukk nga dem tànn bu gën a oyof c'est ce qu'on ba mu permettre ñu ñu wàññi ren engrais de vingt deux pour cent du prix te gis nga prix boobu ñu am ren déwén prix boobu dañ koy wàññiwaat kon engrais gën na mooy cher ren. waaye gën na bari déwén tamit dina gën a moins cher par rapport ak ren te dina gën a bari incha allahu rabbi. monsieur le président ci pexe yooyu nga xam ne eh, wax nga ni eh, yéen a ngi koy dérouler pour fair face à la situation ak tenir seen i engagement lu mel ni wàññi prix ak yi ni mel bokk na ci tamit yokk ressource internes yi ak ressource externes yi loolu mu ñuy yóbbu ci mbiru fiscalité mooy lempo bi. Eh, Euh, entreprise am na si yu bëri bokk yoo xam ne ñu ngi naan dañ leen a xoj fu mu nekk nii ba tax na sax boo moytuwul dinañ wàññi liggéeykat yi wala ñu wàññi seen production te loolu day am njeexital ci koom-koom bi laaj bi mooy euh, lan mooy sa vision yow ci euh, fiscalité nan lañ mën a yokkee ressource yi en même temps wàññi subvention yi gannaaw engagement bu état bi jël la wàññi njëg yi euh, optimiser les dépenses de l'État, y compris les dépenses fiscales. Donc loolu yëpp yow na ngay résoudre équation boobu sans gagne économie bi notamment entreprise yi. xam nga ku ci nekk ku am formation rek am nga déformation journaliste bi am na déformation professionnelle keneen am na déformation professionnelle l'inspecteur que je suis des impôts et domaines am na déformation. sama deformation mooy dama jàpp ne dund ci communauté maanaam ci askan mënul nekk bu dee ku nekk amul looy jël di ko xañ sa bopp di ko dugal pour ñëpp bokk ko parce que dafa am loo xamante ne nit mënulu ko boppam ku génne fii